kay enregistrement mhm. jébbal ko euh, doyen de juges ci ginnaaw sax ñu gis ko ci internet bi mhm. question religieuse boo xam ne dafa euh, euh, am lien ak diine mhm. est-ce que diine autorisé na ngay wax ak nit et particulièrement sa taalibe wala sa sëriñ di ko enregistré très bien laaj nga ma question bu ma neex nag ma bëgg ci tontu déglu sénégalais yëpp ñu déglu ma bëgg sénégalais yëpp déglu ma Abdou Khadir man ak yow bu dara nii benn événement awma droit di la enregistré parce que l'islam dafa interdire espionner nit wala taj sa suu la yàlla wax bu leen di espionner nit ñi loolu mooy règle générale bi mais lislaam règle boo gis dafa am exception loolu hmm. jàng usul xam nañ ko waxuma ak nag ñi jàngul ñi jàng lay waxal hmm. ku jàng usul xam nga ni qaayida boo gis dafa am istisna mooy règle boo gis dafa am exception exception bi tey mooy dossier bu ñu demee ba quatorze morts am mm. ay nit ñàkk ci seen alal yow nga di doomu soxna di doomi daan di jullit ñu ni sa njaboot moo def taxaw fa taxaw nanguut a wàcc bu boobaa ngor ak diine daf lay may nga wut preuve pour wane ne ay caaxaan la loolu loolu la MC Niass def loolu koy justifié loolu moo koy justifié kon exception bi la MC Niass def mooy dafa dafa preuve mm-hmm. wane ne ndaw si day caaxaan ndaw si li muy wax du dëkk ku jàng diine laa la wax de tey gor tey mhm. da ngaa war a def nii MC Niass apprécier ko parce que duñ est-ce bàyyi ndaw si muy continuer di wax loo xam ne lu dëkk bu doon temps normal la rek amuñu droit dara bañ a xew mais buñ demee ba bakkan rot rawatina quatorze morts am ñu jàpp ni yow yaa ko causé man man su ma amoon ma am accès ci yow man su ma amoon accès ci Adji Sarr lépp lu ma lu MC Niass def benn dinaa ko def fukk te MC Niass daf ko def ak responsabilité. Mm-hmm. parce que mënoon naa fuité audio yi audio yi kañ la fuité. biñ commencé biñ commencé bëgg wax ji ñoom. Mm-hmm. commencé naan MC dafa naboon ndaw si. yaa ngi dégg di ko mm-hmm. tuumaal. MC Niass génne vidéo audio yi ni Sénégalais yi déglu ne. Sénégalais yi jugé seen bopp sax moo ko génneem dem. parce que nee na am na ci ñu ngi ko jox ñoo xam ne kenn kaa nga France kenn kaa nga États-Unis même MC Niass bu ko génne woon laa la wax xoola ci contexte bii nii kenn mënu ko cee indil benn problème lu jaajëfal ko parce que dafa sauver ab peuple dafa fexe ba fitna ji ñu teg ko ci suuf loolu mooy li nga xam ni dëgg logique la ba tey tax mbir mi jeex ah, est que lii dina tax mbir mi jeex waaw loolu nag juge bi nga koy man jeexal naa ko te gëm naa ne ay caaxaan la te yow conscience nangu na ne ay caaxaan la te ñoom ñi nga xam ne ñoo ciy wax xam nañ ne ay caaxaan la keneen ku bëgg ku ko bëgg te dégg li tubaab di wax il joue avec le feu mm-hmm. xam nga kuy jouer rek demal rek la ci fekk nga ko di nga lakk de ah oui da ngay parce que nag wolof am na loo xam ni ku ndëgg rey sama boo gisee lu ñuul da ngay daw mm-hmm. maanaam Sénégal yëpp xam nañ ne ay caaxaan Adji Sarr moo avoué boppam tey bu dee am na benn piste bu ñu war a ubbi mooy piste complot bi moo tax bi ma déggee Mamour Diallo ni moom du wax ci complot bu Sonko porte plainte dina ci wax donte man tey su doon Sonko man taxaw ci position ban bu ñu damay bàyyi bi parce que dossier bi kenn amu ci intérêt Sénégal moo ciy perte man loolu laa gëm dara xax na ci ba pare de Sonko dara kay set na ci Sonko yàlla ko setal diine setaloon na ko bu yàgg ngi dégg ba nga xamee ne amul seede ko demul ci ab néeg ci dafay retenir lii loolu laa lay bëgg histoire li muy retenir mooy histoire li muy retenir hmm. mooy Sonko dañ koo kompoloo loolu histoire di retenir hmm. histoire li muy retenir mooy Mamour Diallo bi mu dajee juge bi nangu na ni xam na Adji Sarr loolu la histoire di retenir hmm. histoire li muy retenir mooy nangu na ni dimbali na Adji Sarr kon daanu na ci complot bi loolu la histoire di retenir. histoire di aussi un futur président en tout cas quelqu'un qui a ambition d'être président. di faju ci salon de beauté yi. dina ko dina ko retenir. am est-ce que dafa am benn ci àdduna bi mais loolu est-ce euh, ma leeral ci sa xalaat àdduna bi daal dafa am benn loi buy tere nit nga dem nga dem ci salon de massage. mais am na loi buy tere nit compolo nit foofu la dem def nekk am na loi boo xam ni benn loi terewul nga dem massé wu ci salon de massage. amul ñun bu ñëw ci affaire morale nañu wax ci loi ci république lañ nekk ah, benn moral bi mënuñu ko waaw d'accord bala ñuy wax moral dañuy wax loi ba li nga xam ne ay loi la moo ñu tenir ñun ñu tënk ñun ñëpp mhm. benn loi terewul nit ki nga dem ci salon de loolu benn loi terewu ko mhm. waaye am na loi buy tere espionner nit mhm. am na loi buy tere bu tere comme nit dégg nga wax kon kay li loi di tere ñi ko def ñoo dañu war a indil problème d'accord Sonko moom ba léegi dafa gudd loi di tere. Mhm. waaw d' accord. <laughs> <laughs> temps temps bi jeex na malheureusement. waaw malheureusement nañ li ñu waroon waxtaanee yëpp ñu bàyyi la nga tàggatoo. Ah, li may tàggatoo rek. Mhm. mooy dégg naa ko mel ni mu Moustapha Diakhaté. Mhm. loolu foo ma jàllale ko message la bu ma ñor. mu ne nañ jàpp MC loolu man damay lancer un appel solennel le président la république. MC jur jàmm réew mi man loolu laa gëm. ci ñi nga bu réew mi fu mu ko wéer fu mu ko wéer waaw non dañuy wax rek xam boo gisee ma koy wax am na lu tax parce que dina xam lu bari toogaale ko mhm. Moussa Diakhaté képp ku ñu dal ma dal Moussa Diakhaté moo moo ko yóbbee moo njëkk a taxaw ni nañ jàpp Ousmane Sonko moo njëkk a taxaw ni nañ dàq Ousmane Sonko ci impôt bu ngeen fàttali ko toog ak rajo ba dàq ko tey Ousmane Sonko seen premier adversaire ci réew te xamoo ko xam ne xamoo nu mu duggee impôt xamoo ay waajuram lu ñu daj ba ba bam bam bam agsi foofu tey même Moustapha Diakhaté bi moo taxawaat nañ jàpp MC kon jàpp MC Niass du jur solution yaa ngi dégg ndax MC Niass du nekk kii ci réew mi te MC Niass defagul ñu koy jàppee lim def. mais justement fooy question lim def lim def non dañuy wax xam man damay alerté mhm. lim def bu doon man a loolu laay def MC Niass surtout laj jor la tam moo nanguwul complot Memphis doomu doomu Cheikh Ibrahima ñas la deretam nangul complot kon jàpp Memphis Niass du solution loolu teg leen ko ci suuf tey lii solution mooy réew mi ñoo ko bokk yaa ngi dégg dara garaaw li fi jaar ñëpp regretté nañ ko waaye tey nañu ci essentiel ñu dem ci essentiel mooy ñu fexe ba ngor dellu siwaat ci réew mi ay valeur dellu siwaat ci réew mi loolu mooy les vrais débats mais débat wu complot mënatul a am ci réew mi réew mi nanguutu yaa ngi dégg hmm. parce que am na ko moom mooy Moustapha Diakhaté parenthèse na fi ŋàññi yonent bi du woon njuumte damaa bëgg damay wax nii damaa bëgg mu déglu ma te bu ko neexee mu tontu ma wala fu ma woo ma wuy ko taxaw na fii devant les médias wax di def ay comparaison way comparé waajurum ak waajuru yonent bi wax ci yonent bi loo xam ne képp kuy jullit naqari na la dañ ko bàyyi parce que jàpp dafa juum kon tolérance boobu Sénégalais yi am ci moom moom war na ko war na koo am ci MC Niass jàpp MC du solution d'accord xam nga liy solution mm-hmm. mooy ay caaxaan boo demee ba gëm ne ay caaxaan la teg ko ci suuf looy gën di dem xoola mbir mi di gën di di gën di balu teng la day dellu si waat ci yow. d'accord am baal ma rek. Ah, temps bi jeex na am na invité waaw effectivement je pense que jàll ah, na. parce que ñun loolu moo ñu ci boole ah ñun dañu ñun tooguñu pour kenn kontaan wala kenn mer. c'est ça dañuy wax ni dañuy wax ngir Sénégal. Sénégal moom moom kenn moomu ma. Mhm. te bala ñoo xam ne Sénégal moom moom ñii ñu jàpp ne damaa far ci ñoom ñu jaar weneen yoon bu bokk li sama conscience tranquille nangu ñu jaajëfal la kon imam bu baax euh, ci teewaay bi jaajëfal euh, mbokk yi di jégalu euh, ki nga xam ne mooy invité Birama Birama moo war a teew fii ci kanam ngir dégtal leen seen émission politique bi nga xam ne dañ koy dégtal bu subaa ci dimanche bi invité am nag Cheikh Oumar Sy di ancien député moom la war a dal ngeen war ko teewlu bu subaa jaajëfal